فوق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت ci suñu épisode bu njëkk bi nettali nañ leen ni xare bi demee ak denc bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc soxna Juwayriya tey nag dinañ nettali ni naafiq yi nekkoon ci biir jullit yi doon jéem a indi fitna naafiq yooyu nag ñoo nekkoon ñoo xam ne dañu daan feeñal ni ay jullit lañu fekk ñoo ngi nëbb kéeféer seen yéene moo nekkoon di jéem a yàq lislaam ci biiram dañu daan wane ñi ñu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu fekk moom rek lañ gën a bañ di wane xër ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te suñu wéetee di ko weddi donte ñu ngi ci biir jullit ñi ànd ak ñoom di julli di dem xare ak di def yeneeni jëf yu ñu mel ci lu baax seen mbegte mooy di gis lislaam di néew doole ak di dellu ginnaaw fu lislaam amee ndam rekk ñu am lu leen metti ki gënoon a fës ci naafiq yi mooy ki ñuy wax abdullah ibnu ubay ibnu salul laata lislaam di agsi yasrib dafa doonoon ku ñu fonk ñépp def ko kilifa dem nañ ba di ko waaj a fal buur bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam agsee yasrib ñépp jublu ko

nekkul koo xam ne ngëm dugg na ci xolam waaye feeñal mu denc kon ci biir xolam bañ Muhammad ak bañ lislaam mu am itam ci biir waa Madina arab yi ñeneen ñu bari ñoo xam ne ñoom itam feeñal ko lislaam du jullee ko woor waaye ñu bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ñu bañ lislaam lañu ñu gëmul yàlla lañu Abdullah ibn Ubay léegi nekkatul xam nañu defatuñ ko buur dañ daan wujje gannaaw ñoom ñëpp tuub nañu léegi jaloore yi ñu daan ëppalante ak di ko xëccoo ñu jëmale ko ci lislaam am na bis yonente bi agsi ci benn jotaay di leen taril alxuraan di leen waar boobu Abdullah ibnu Ubay mu ngi ci mbooloo ma mu artu yonente bi ne ko su dee li ngay wax dëgg la kay dellul fa nga jóge waar leen ku la bëgg déglu dina la fekk fi nga ne waaye kenn ci ay mbokkam di saxaaba bu baax bu tudd Abdullah ibnu Rawaha moo wax yonent bi ne ko ñun de li nga ñuy taril alxuraan di ñu ci waar neex nañu kon wéyalal jamono jooju Abdullah ibnu Ubay duggagul ci lislaam ndax jàppoon na ni dina mën a jëfandikoo kilifteefam ngir yàq diine ji waaye ginnaaw xare Badar la dugg ci lislaam ndax xam na ne mënatul a nekk ci biti di yàq ndax doole diine ji yokk na waaye daa dugg moom ak ay moroomam di yàq xelu ñenn ñi nga xam ne seen ngëm dëgëragul xoolal xare Uhud ni mu doxalee daa bàyyi ba armée bi nekk ci yoon wi nga xam ne léegi ñu jàkkaarloog noon yi mu jug ne moom mu ngi ñibbi Madina mu mujj yóbbaale ñetti téeméer ci armée bi lépp rekk ngir teyalloo jullit ñi ak delloo leen ginnaaw ngir gàcceel yonent bi daan sax jàppale yahud yi daan wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg lu xew Medina mu yëgal leen ko lu yonent bi di waaj rek mu fexe mook moroomam yi ba nooni jullit ñi yëg ko misaal yi du jeex dinañ ci gën a dikk ci yeneeni jotaay kon ñu dellu si mu Muraysiya ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee ndam ñuy waaj ngir dellu Madina ci yoon wi kenn si lansaar yi jote ak kenn si muhaajiroon yi boobu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mu ngi toog ci am mbooloo di wax ne yéen waa Madina yëfal ngeen seen xaj ba mu màgg mu wëlbatiku di leen màtt su ngeen teewoon seen bopp bañ a dimbali yonente bi ak ñi àndal dina mujj ñëpp bàyyi ko mu wéet waaye yéen a ko dooleel ba ñu sañu jóge màkk di xoccook ñun mu teg si ne suñu delloo Madina ña am doole mu jublu si boppam dinañu génnee ñu neew doole mu jublu ci yonente bi sallallahu alayhi kàddu yu ñaaw yooyu bi mu koy wax am na kenn ci saxaaba yi ku tudd Zeyd ibn al Arqam moo dem jottali kàddu yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yonent bi déggee mu am lu ko naqare lool waaye Abdullah ibn Ubay tamit am tiit ñëw ci yonent bi weddi ne waxu ko Abdullah ibn Ubay mujj di waat ne waxul wax jooju ñëpp mujj wax ne Zeyd ibn al Arqam amaana moo juum nu mu ko déggee waaye nees tuuti suñu boroom wàccee aaya yoo xam ne dafay dëggal ne moom moo wax wax ju ñaaw jooju di dëggal Zayd ibn al-Arqam foofu nag wax nañ ne Abdallah ibnu Ubay ibnu Salul bi nga xamante ni dégg na ne xabaar bi àgg na ci yonent bi ci la ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa daal di giñ daal di giñ ci yàlla ne ko yow yonent bi man de waxuma loolu giñ naa ci yàlla ne waxuma ko te moo ko wax waaye ab naafiq dafa bokk ci melokaanam su waxee fen e su la jëkkoo wor la moo tax mu sañ a giñ ne waxu ko te wax ko li mu nekk naafiq moo tax mu def ko Abdallah ibnu Ubay ku teddoon la ci aw nitam e, teddoon na itam ci wàllam saar yi e, ki gi mu dencal yonent bi moo di ne dañ ko waroon a fal buur ndax bis biñ ko waroon a fal buur ci la yonent bi ñëw Medina mu jigi na kenn talatu ko looloo tax nag mu dencal yonent bi nag eh, mbañeel gu nga xamante ni pexe mu ne dugg na ci وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم